ilay teema jóg way fi ngeen seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bakaat wawaat wayaat dellu sulliwaat nam soxna jaara ki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ta tànk ci géejëm gi saxoo du su géeb lay lay la la ci xeewal yi kor dellul sedduwaat maam jaara nawet baa ngi waamew yàlla waa ngi di wal fu lu waay tax mu sax meññ na toloo gum mu siqiwaat maam jaara ku dëkkaale ak yàlla ngi ni ba jobaa ngi ku rëy ay jaloore di xudwatu saalihaat lu jim njaaga maam jaara di njaag ummu say xanaa am ndab lu fees lii dellu kuy ñëw di rek xaat samam kooma ngi am ndam ba ngi soxna tur bi naka la. Mame Diarra Seck. Mame Diarra Sey Mame Diarra Mame Diarra Seck. Mm. Mame ñu fekk la tey ci daaray Poroxaan nga bokk ci Mame jaar yi nga xamante ne si ñoo nekk ci daara ban année nga ñëw ci daara ji. 2005 daara ji ubbi. ndax daara ji da ngeen yem ci jàng alxuraan kese wala am nga yeneen façon xam-xam yu ngeen di jàng. waaw waaw daara ji dañuy jàng yeneen façon xam-xam lu mel formation yoo xam ne ñu ko fay amal. yoo xam ne yu bari la daal yoo xam ne yu utee te bokkul formation yu bari ñu ngi ko fay def. Euh, ginnaaw loolu ñu gis ne jamono ji am na ci ay daara yoo xamante ne si waajur yi dañuy jàng parce que dañuy fay ay dunda yëpp la leen di war ndax yéen ci daara ji yooyu yëpp dina ci am. non daara ji amul lenn loo xamante ne si ne waajuru maam jaara bi dina ko def si daara ji amul ci dara loo xam du 100 boo xam ne ñu ko koy laaj lépp suñu faa koo defoon ngir lan ngir delloo ko njukkal soxna jaara ba léegi daara ji daara ji si noonu lay doxee. waa waajur maam ja amul leen loo xam ne loolu lay participer ci daara ji. maa ngi fi rek. Euh, tur bi naka la. maam jaar Diop. Euh, maam Diarra Diop. tey ñu fekk la Poroxaan nga bokk ci maam Diarra yi nekk ci daara ji ban at nga ñëw ci daara ji. man maa ngi fi ñëw 2005 bi daara ji di tijji. 2005 waaw boobu laa fi ñëw. bokk nga ci ñi nga xamante ni si ñoo sos daara ji. waa ci laa bokk. <laughs> waaw mokkal naa ba tari ba bind. waaw man maa ngi fi ñëw 2005 génn fi 2014. waaw ah, parce que da ngay non non pare naa ba génn léegi maa ngi jàngale Touba. Touba nga nekk di jàngale si benn internat waaw. jamono ji ngeen ni nekk ci daara ji jàng ndaka la njàng mi doon demee. waa alxuraan moom ku ne xam na ni yombul alxuraan moom yombul mais poroxaan moom wax dëgg yàlla daara la boo xam ne boo si génnee jàng bi moom dafa neex parce que gis nga mam jaare bu ñu gisantee dañuy dañu bëggante suñu biir dañuy nekk si jàmm di waxtaan. dañ buñ daan dem vacances dañuy yàkkamti ñibbisiwaat parce que léew da ngay dund da ngay tàmm dund ak maam jaare yi ba moo lay gënal sa nekk ak say mbokk ak yëpp daara ji moom dafa neex moom wax dëgg yàlla. mel ni daara na ak eh, ni ngeen ciy dund ndax ci jàng alxuraan rek ngeen yam wala am ngeen yeneen xam-xam yu ngeen di jàng. waaw yamuñu si jàng alxuraan rek parce que boo mokkalee da ngay jàng xam-xam mooy majalis bi dañuy jàng tamit arabe dañuy jàng français. léegi tamit ñi ngi def formation comme yii nii ñoom ñëpp mam jaare ñoo koy def ci centre bi léegi daal daara jamatul si jàng rek dañuy def lépp lu jigéen soxla coiffure lépp dañ koy def. ndax formation mën nga ñu expliquer yan genre formation lay nekk. dégguma formation bi ndax mën nga ñu expliquer yan formation waaw formation bi bi ñu génnee doon def nañ médecine mais Dakar lañ ko defee du fii fii nii nag si biir daara ji mam jaaree dañuy def dañuy def comme. lii ni ñuy jaay mi ay waa lépp lañ dañ leen koy jàngal di leen jàngal coiffure ak sant lépp lu jigéen di di soxla daal couture lépp dañ koy def ginnaaw formation bi ndax dafa am ay béréb yu ñu leen di yóbbu ngeen dem di fa liggéey wala ku pare da ngay dem liggéeyal sa bopp waa ñun moom bi ñu paree dafa am ñu ñu contacté ay borom internat am na si ñoo xam tamit bàjjan awa dem directrice bi moo lay booleek ñoom pour nga dem fa jàngale ak yooyu soxna si def. maa ngi fi. Eh, tur bi naka la. moom Diarra Gueye. soxna Diarra Gueye tey ñu fekk la Porokhane ci daara soxna Diarra ji eh, ban année nga ñëw ci daara ji. Ah, maa ngi fi ñëw 2005. kon maanaam ci ñi eh, fondé kii bi ci la léegi yaa ngi ci daara ji wala. non non nekkatuma ci daara maa ngi fi génnee 2014. actuellement ci lan ngay yëg. waaw biñ génnee ci daara ji. dañ boole woon ci Mame Diarra yi nga xam ne dañuy def formation santé actuellement ci laay yëngu. kon daara ji am na ay formation santé. waaw am na formation santé am na culture et cetera bari na. liggéey bi naka lay demee fi mu toll metti na wala yomboon boole koog jàngum alxuraan ku nekk xam na ni jàng alxuraan yombul. na mettiwul ndax jàng soo ko maanaam soo ko soo ko bëggee xam ni niñ koy téye rek di nga di dem incha allah njàng mi nag daara ji neex nga xam ne suñ naan jógee vacances dañuy yàkkamtee ñibbisi ak suñ moroom yi ñu fi fekk maanaam daal fii moom suñ famille rek. dafa mel ni daara ji wuute na ak daara yi ñu gis léegi nga xam ne xale yi boo leen yóbbu daara wala bu ñu delluwaat tabaski ak yooyu dañuy jooy mais yéen contraire bi lañ mhm. fii moom dafa neex dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañ bokk ndey ak baay kafre soo fi jógee da ngay yàkkamtee dellu si nga bokk ci soxna jaar yi nga xamante ni génn ngeen fi ndax ba fi mu toll nii yéen a ngi jëflante wala yéen a ngi dikkaat léeg-léeg di nemmeeku seen rakk yi fi nekk. waaw waaw waaw ñu ngi jëflante dañuy tëj ay groupe def dañuy def daayara lépp lépp ngir ñu bañ a réeroo rek. ndax tey am nga borom kër wala amoo borom am na borom kër. macha allah tey bu fekkonte ne am nga tout tànk sa borom kër tuddee ko soxna jaara ndax fiñ la jaarale ba nga egsi fii di ko fa jaarale. ah incha allah loolu fi yette lay doon <laughs> dina ma neex trop. xam nga dafa neex nga jaar ci daaree soxna jaara amaat doom tamit dem delloowaat. dëgg la dëgg la day sama rêve sama doom jàng alxuraan mokkal doon nitu alxuraan daal waaw. maa ngi fi. bi naka la soxna may seen. may seen ñu fekk la tey ci dëkk bu sell bi di Poroxaan euh, waaye nag niñ la fi fekkee ci beneen anam la parce que dañoo dikk fekk euh, ay produits yoo xamante ne si mi ngi yow fan la produit jóge ak lan moo ko fi ah, soxna si maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare euh, waaw nga laaj ma ci produit yi nga xamante ne ñu ngi jóge fii Poroxaan ca daaray maam jaare ji ñoom maam jaare yi nga xam ne ñoom ñu ngi jàngi ca daaray maam jaare ji ñoom ñoo koy liggéey waaye nag ca centre de formation ba lañ koy liggéeyee. ñun nag moom ay commercial lañ ñu ngi féetee dakaar euh, ca bureau parrainage ba fa nekk siège siège bi en face Massalikul Jinaan euh, ñun dañuy ñëw ci daara ji ut fii produit yi nga xam ne ñu maam jaare ñoom ñoo koy liggéey seen loxo yóbbu ko Dakar di ko wéccee mbokki taalibe yi pour ñu xam ne. kon li ma gis fii yëpp ñoom ñoo ko defar man pour man daara ji alxuraan rek lañ fi jàng. waaw dañuy jàng alxuraan boole ko di defaale formation waaw lii nag ne moom ñoom ñoo ko liggéey produit yi ñoom ñoo ko liggéey ci seen loxo. li lan moo nekk ci. waaw bii moom coco au lait la moom coco au la am na ay yeneen i yeneen i bagages yeneen i bagages yoo xamante ne ñoom ñoo ko liggéey seen loxo ci mel ni ay céréales ay tege-dege ay sirop euh, ay xeetu jus ñoomi seen ñoom ñoo liggéey si seen loxo ak yeneen yeneen yeneen ah ñun moom ay commercial lañ dañuy jugee Dakar ñëw fii ngir jàppale daaray maam jaare ji boole koog inscription parrainage bi ñuy def ca biir ca bureau parrainage bi foofu ca Masaalikul yéen a leen nekkal ñun ñoo leen nekkal dakaar waaw euh, inscription parrainage bi nag boo ci bëggee tab bi da ngay ñëw ba ba ci bureau ba wala nga woote si suñu suñu numéro boo ci wootee euh, ñu mën a wax a yow jox la ay information ak nooy nooy def boo mën a tàbbi ci ci bi waaw. produit yi am na ñoo xamante ne si ñu ngi koy ñëw di jënd si ci béréb ba nga nekk ndax comme yéen ay point de vente ngeen fa fële ci Dakar. waaw am na ñu koy jël si nànk-nànk mais am na ñoo xamante ne xamuñu carrément produit yi fu ñu jugee am na ñoo xam ne ne euh, dañuy romb rek duñu xam ne produit yi nu fu ñu jugee ak nu fu ko defaree. mais nag am na si mbokki taalibe yoo xamante ne wax dëgg yàlla bu xamee ne produit yi dëgg-dëgg poroxaan lañ ko defaree euh, da leen di jaral lu ne dañuy dañuy jugee fu sori sax ñëw jënd si ko Masaalikul Jinaan waaw macha allah. yeneen produit lu ci mel ni ay confiture nii nga yor. waa bii bii moom mooy pulpe tamarin bii mooy mooy pulpe tamarin bii moom ñoom ña defar ci seen loxo bii moom mooy sirop sump bi tamit jus lañ koy def bii nii jus lañ koy def bii nii dañ ko defar yow da nga ci yokk sa tuuti ndox rek bu la neexee da ngay yokk suukar mais defar nañ ko ba pare waaw. te lii lépp xale yi ñoom ñoo koy defar ci daara. ñoo koy ñoo koy defar ci daara jooju centre formation. Euh, ginnaaw bi nga xamante ne si rek yéen gis image yi noonu mu nekk soxna jaara yi nga xamante ne si ñoom ñoo fi nekk mën nañ leen a wooyee soxna yi nga xamante ne si sax daanaka ñoom ñoo daal di sos daara ji ndax depuis 2005 ba léegi lañ fi nekk euh, génn fi 2014 waaye tamit yemuñu ci jàng alxuraan ndax dégg ngeen seen kàddu am na ay formation yoo xamante ne si jot nañ ko cee def lu ci mel ni santé couture ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne si am nga ko bu ngeen xoolee sama ginnaaw tamit gis ngeen produit yi nga xamante ne si tamit feeñ na ci biir waxtaan wi ndax yemuñu ci jàngum alxuraan kese Euh, dañuy defar lépp loo xamante ne si rek jigéen daf koy daal di soxla euh, ngir ñu di leen ci accompagner ba bu ñu génnee rek am métier boo xamante ne si dinañ ko daal di mën a jàppale seen i. de conférence ak ay plateau yoo xam ne dana fi am durant 48 heures yi. nga xamante ne ni diggante mercredi bi lay tàmbale tey jii ba suba ci alxames ba ci cérémonie officielle bi ba ci julli ajjuma ji lépp dina jàll incha allah. mu mel ni ginnaaw bi ñu fi duggee gis nañ ay xeeti liggéey yoo xamante ne si euh, donga yi dañ koy def moom mooy xale yi fi nekk liggéey boobu naka lay. waaw maam jaare yi nga xamante ni ñoo jaaroon ci daara ji jàng ba mokkal alxuraan nekkat ci ci ci ci ci fi nga xamante ne ni moom mooy euh, delluwaat seen i kër ñooñu bu màggal gi ñëwee dañuy si dellusiwaat ñëw ñooy encadré liggéey bi am fii nga xamante ne ni ñoom dem nañ ba former daayira euh, lépp loo xamante ni itam génn na fi day delluwaat ci daara ja ndax ay écharpe yi ñuy jaay wala yenn yi nga xamante ay cadeau lay doon gan yi fii ñëw danañ ko mën a jënd mën ko delluwaat ci daara ji ndax euh, maam jaara yooyu ñoom ñoo fi ñoom ñooy gérer li nga xamante ni mooy accueil bi ak euh, exposition bi wala yéen nga xamante ni yëpp mooy activité culturelle yi fi am ñoom ñoo koy gérer. mu mel ni produit defar gis nañ ci ay produits macha allah euh, bu màggal gi jàllee ndax dafa am yeneen béréb yoo xamante ne si spécial da ngeen ko def pour di jaay produit wala dafa am ñuy ñëw ci yéen di ko loolu ñoom bi ñu paree dañuy delluwaat ci seen i daara dañuy delluwaat ci seen i kër déggoo ma ne la ñoom formé nañ daayira boo xamante ni lii lépp lu am ci côté activité culturelle bi ci forum bi fii ñoom ñoo koy def nga xam naa boo demee boo leen laajee ñoom danañ la gën a leeral seen i activité noonu lañ koy mënee durant l'année waaye fii daal bu ñu fi dajee ci màggal gi moom loolu nga xamante mooy activité culturelle yi ak euh, accueil beeg yooyu ñoom ñoo koy gérer waaw. Euh, di ngeen daal di àndaat ak ñun ci kanam tuuti ci yeneen plateau yoo xamante ne si ak euh, bépp ambiance boo xamante ne si rek dafa daal di xew ci biir Poroxaan di leen ñaanal bu baax a baax rek màggalu jàmm. lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam